Assalamu mbokk yi ginnaaw bu ñu sante yàlla julli ñu leen di nuyu di ñaan yàlla doole doole dal doole wér réew mi ñu nuyu ko ñaanal Cheikh Mbacke spin Nous di nuyu yàlla yëpp dañu ñëw si suite li ñu tàmbali woon ñetti façon liir yi le nouveau-né normal le nouveau-né anormal à ak le nouveau-né prématuré waxoon nañ ci couleuru der bi deru yaram bi tey dañuy ñëw ci wax ci yeneen ñaari fàcc muy maanaam na der ba bindoo ak soo ko tëralee ci ji jaaxal na leen màndarga yi ngay tànk yi di bindoo ak loxo yi suñu njëkkee ci ki nga xam ni moy ki wax le nouveau-né normal à terme moy ki nga xam dafa normal amul ben défaut deru yaram bi da fay da fay ferme da fay ferme fay du ki nga xam ni le nouveau-né prématuré deram day yaraax day oyof day yaraax mi ngi mel tay nga Lagos ak gaz kon nga xamni amna amna na am na différence dafay yaraax dafay transparent nga si mën a gis ki nga xamni nak dafa nek un anormal à terme koku boko ko soko soo ci kaw table mo ki nga xamni dafa normal à terme seeni loxo bokoy xol da fay former le coup double la lettre double ni nii la loxo def dafay former lettre W c'est ko W day former Tant yi ak bassin bi former lettre M muy ma loolu mooy ñaar ñooñu ñi nga xam dafa ñëw nekk anormal à terme ak normal à terme ki nga xam nag dafa prématuré xale prématuré mom tanki, yi du am problème dina am dina former M avec bassin bi mais li problème moy du falbe double yi fay tafu tafu kon moy différence ki nga xam prématuré prématuré kon baxna na baxna na xam kon der day am ñu xel bu a baax benen nak moy so jëlé xalé bi nga le nouveau-né normal à terme ak ki nga la à terme kon ñoom daanaka du ñu neex a ràññet la si si cër yi maanaam tànk yi ak ak ak loxo yi boo leen tëralee kaw yi mais ñoom ñaar dañu am différence kon ak ki nga xam ni prématuré la ndax moom loxoom dafay daal di presque tafu si tafu si si yaram bi kon yooyu jar na xam xàmmee ki nga xam ni dafa juddu normal mu leen nu wone normal à terme deram dafay dafay ferme deru yaramam ki nga prématuré deram dafay transparent dafay oyof dafay transparent kon lolu ñu qui un normal à terme ak na terme mais normalul koku der ba dafay tafu si yaram manam der bi ak si yi le front dafay plissé man bo xolé jebi da fay mel def ay ay pli ay ay ras koku non bo xolé kanam da fay mel kanam ko maguet vieillard koku moy xalé bi nga xamni nouveau né anormal à à terme ko nga xamni du xalé bu bu bu normal bo nopi nak so xolé bob bi da fay reuy bob bi da fay ëpp bop bop normal lolu jarna jarna jarna bayyi bayyi xel deru yaram bu sa fay mel lu lu xawa race kooku mooy ki nga xam dafa nekk un enfant anormal à à terme kon loolu baax na xam pour différencier xale yi nga xam ne dañuy soog a soog a judd su ñëwee si question yi ñu indi tey ku njëkki daal nee na moom métti nopp moo ko sonal nopp nopp nañu jox ñaari tegtal bi la gën a yomb nag jigéen la mooy laaj léeg tuuti laaj da nga tëb tëbal ko xooj ko su ndox di ko toxal su nopp loolu baax na ñaareel bi mooy boo amee reenu naajo naajo da ngay jël reen bi nga tëb tëbal ko ndox waaye ko ba mu saf nga koy toxal si nopp ñaar daal boo ko def si kàttanu yàlla da nga tàggoo ak li ñuy wax méttitu méttitu méttitu nopp question bi ñuy jeexale kii daal neen dafa gént li gént daal mooy mhm, dafa gént kenn si ku génnoon àdduna mu gis ko muy doxantu si biir kër gi kooku naissance la ku war a juddu la xale bu war a juddu si kër gi lañ lay woon kooku lu bara bàyyi xel la li la wax na nga sarxe ko mooy guro bu weex nga nga sar ko mooy saraxam mais loolu du lu lu bon ñun tàggu fii dañ jox na beneen jotaay jërëjëf